tay Allo Dakar euh, dafa ci commerçant bu mag bu établir fi ci wakam ñu diko wax euh, Samb gën ko xam ci turu euh monsieur Samb ñong lay nuyu. wa ma ngi di Dakar. Euh, dañ la situation des ambulants au Sénégal ndax problème informel secteur informel ñep xam ne dafa bëri jafé jafé yow vraiment am lo ci dox def nga ci ñu bëggoon a xam tey booy xool def analyse tey situation bi tey situation ambulance lan ngeen ci mën a wax. waaw je vous remercie beaucoup yéen waa Allo Dakar waaw pour informel bi nag defe naa ni man su ma ci bindul livre rek kenn mënu ko cee mën a bind. ndax euh, sama commerce maa ngi ko commencé tout juste service d'hygiène di établir foofu doon jaay fourniture scolaire. Bobo jamono ay bouquiniste lañ won fofu lañ commencé développer bobu y avait que trois bouquinistes comme buñ ko daan xol c'était en 1975 kon du di établir di dem ci lolu di jënd ak jaay ba yagg ma xol commencé di jaay ay dal lolu c'était en 1990 ci la établi nek Jean Jaurès bi ma nee Jean Jaurès di élargir affaire bi ba yàgg ma def ko succursale nekk boori poor man Moussa Diouf Alphonse boobu nag ñu ngi fiy créé ici à Dakar vente à la criée bi ñuy toj port ma romb Petersen tout juste ñu ni Petersen ñu ngi koy bëgg a sanc gaaraas keroog boo fay ñëw maa ngi fa fekk benn femme bu ñu naan say ak benn coiffeur jour boobu ak Gaston Mbengue boobu Gaston ma nga fa am fa bureau boobu Petersen c'était vaste kenn newu fa te laa ñëw établir fa commencé fa jaay ay parfum ba yàgg ma commencé fa ay dàll ñu koy sanc ca la Petersen juddoo kon héritage yu Petersen c'est le vieux ndax ku sanc bu dëkk bu dëkk ba jebbee boo ca amul turandoo war kaa am tur noonu la Petersen soq jërëjëf ci rappel boobu nga ñu defal mais dëgg la sen tey taxaw na mais taxul tam problème ambulant yi ñu réglé ko ndax centre commerciaux yi bëri na mais ba léegi gis nga par exemple ay jafe-jafe ci tali bi occupation anarchique bi tey président woote na ne dañu war a dégager désencombrer les rues de Dakar tey lan moo ci sa xalaat. waaw loolu président wax parce que dëkk it dafa nekk en voie de développement parce que souvent je le disais à Khalifa Sall. Parce que moi, je disais une structure, le réseau des commerçants, bien avant ben association de taxaw sur les ambulants. Maintenant, man suis daan taxaw di ci diriger yu bari association yëpp yi fi am ci sama kanam lu le lu ci bari it buñ koy sosit ci sama kanam la juddoo daanaa pousser pour ñu def ay synergie pour mën a pour mën a mais toujours heure buñ ko fexee it projet ba finalement day torpillé wu. Ah, lu waral loolu. ah li ko waral nag mooy kenn ku ci nekk rek bëgg nga jël benn responsabilité de pouvoir boo xam ne même boo mënta dem sax di nga jéem a galkane nga xam ni moo mën a dem. parce que man ñi ci nekk pratiquement ñii samay doom lañu ñii samay rakk la kenn maguma ci kenn njëkkuma cee jaay kenn ëppuma ci xam-xam boo xam ni mën naa diriger loolu pour mu jàll mais man du ma xëccoo. mais tey simat taxawaloon nañ ko muy la synergie des marchands ambulants de Dakar. Mhm. tey Simaat fan la mujjee. waaw Simaat euh, euh, je vous rappelle que ni en 2009 première assemblée générale bi ñu njëkk a taxawal euh, ca laa bokk parce que la ko jëmmal ak la ko fexe ak bañ koy taxawal it ca laa bokk boobu man j'étais le président d'honneur mu lay nag ay association boolewuñu ndax sama rakk la sama xarit la tey bu ma ko fekkoon muy yéeg ci gaal sax ma jàppale ko mu dem ca gaal ga parce que ñi ci affaire association jiital mooy ñi nga xam ni parce que man même bu ma yorul association am na mbooloo moo xam ni il me poursuit sur ça. waaw tey euh, ñu fekk la fii tam ba tey ci Wakaam. fekk la ci magasin bo xamné ay tissus yu lañ fi fekk macha allah. Mhm. Euh, da nga spécialisé wu ci tissu wala da ngay def commerce général. wa man nak euh, spécialisé mo basé wu rek ci ben article man toujours damay diversifier so gisee yi ma préparé boutique bi secteur informel pour mu jeex il faut nga jéem formaliser sa bop ndax comme président daf ni dafa bëgg a defar dëkk bi man ma créé lu ci ëpp ci informel. lu ci ëpp tey jii man mii sa waroon naa cee am ay sanction waaye suñ mën naree sanction yi war nañoo génnewaale encore social ba parce que mbedd yu bari ruelle yu bari man maa ko def marché claris googu bu mënee xumb ba ay jaaykat di fa ne man la la cause bi ma fa jógeek léegi boo à Dakar pratiquement tu ne vois pas ça même des clients ce qui est la. mais aussi Il y a yenn centres commerciaux yi dafa am problème de sécurité semaine passée rek avons fait Un marché salin saline ben le corps d'une dame sans vie ba récupérer en tant que responsable ci l'environnement environnement euh, commerçant Quel ban ban message ngay lancé. par rapport à Ce xew. loolu di souvent da nga ma njëkk a interpellé léegi laaj ma ni ma li tax centre commerciaux yu bëri projet bi day mujj yàqu si day yàqu parce que consensus nit boo koy defal dara da ngaa njëkk a war a waxtaan ak moom laaj ko fii chute bi na mu di à Pape Seck waxoon naa ko it xalifa Sall ci suñu premier daje bi ñu daje bi mu ne day jënd site boobu deux milliards boo ko jëndee it comme président mayoon nañu Petersen

non jaaykat yee fa nekk dañuy sécuriser seen marchandise kon ku sécuriser marchandise mooy sécuriser waale sa bakkan parce que marchandise bi bakkan bee ko ëpp doole nañu mën a fexe ba sécuriser marchandise mi bu ñu ko defee sécuriser waale bakkani nit ñi. jërëjëf mbokk alors Dakar TV eh, tey lii lañ leen indiloon tey seet ci woon fi commerçant bu ñu naan Alioune Samb ñu gën koo xam ci turu Alé Mbaye waxtaan nañu waxtaan bu yaatu wax dëgg yàlla dellu si ci situation des ambulants dellu si ci situation des centres commerciaux ak lii fi xew barki Demba Ndiaye fii ci wakam ci marché Salañ Salañ euh, sëñ Allé ñu ngi lay ñu ngi lay gërëm di la sant.